asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu Rewmi FM Dakar 97.5 di ko déglu saa su ne rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle dalal Famara Ibrahima Cissé nekk président bu association des clients et sociétaires des institutions euh, financières di ACSIF ñu daal di fas yéene waxtaane lu ñuy wax arnaque bancaire ak tamit jafe-jafe yi nga xamante ni fi ñu toll nii client banque yi euh, ñu ngi koy jànkoonteel ak crise sanitaire bi nga xamante ni euh, dafa dem ba nekk crise économique daal di laat euh, laal encore ñi nga xamante ni ñoom ñooy client wu institution financière yi ba tax nag waa ACSIF sax ñu ngi doon ñaan ci ab bataaxal sax ministre de l'économie et des finances ci sax fay bor yi nga xamante ni war nañ ko fay ainsi de suite lépp daañu ko waxtaanee tey ji ak di Ibrahima Cissé euh, coronavirus ak tamit jafe-jafe yi nga xamante ni andi na ko euh, ci dëkk bi ba laal client ak société euh, sociétaire yu institution financière yi Famara Ibrahima Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen gërëm. di rafetlu invitation bi ngeen ma def tey. jëm ci waxtaanee question bi nga xam ne c'est une question d'actualité. ñu yaakaar rek ni askan bi yëpp nañ ci jëlee njëriñ te tamit euh, di remercier ñëpp ñi nga xam ne mooy techniciens yeeg euh, euh, seen spec seen. auditeurs yeeg. ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu waxtaan bi. voilà ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité ACSIF di nga ñëwaat ak ñun ci euh, association bi di clients et sociétaires des institutions financières ACSIF bi ngeen koy tekk euh, lan moo ko tax a jóg lan mooy ay kombaam exactement. waa ACSIF ñu ngi ko créé en 2009. Mm-hmm. mais en 2012 la ñu am récépissé. Mm-hmm. Euh, parce dañoo toog seetlu ni. diggante client bi ak banque bi tolloo ñu doole saa su banque bi tooñee client bi client bi du am fu mu mhm. ko jooyee du wax mhm. dara mhm. bàyyi naa ko yàlla lay wax alors que saa yu client bi tooñee banque bi ñu gis ni day jël euh, ay ndogal yu mag teg ko ci kawam mu mel ni saisir ay bien yóbbu ko tribunal wala boog euh, vraiment am na ay jumtukaay jumtukaay yoo xam ne da ko doon jëfee pour que moom banque bi mu dugg ci ay droit am ñu ne nag dafa am déséquilibre de force te bu kenn ku nekk demalee boppam du ñu mën a am gain de cause daanaka du ñu mën a am satisfaction mm-hmm. moo taxoon ñu teg kuréel goo xam ne day ëmb ñëpp ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg banques yi ñëpp ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg institution de microfinance yi ñëpp ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg compagnie d' assurance yi ak tey monnaie électronique bi c' est à dire émetteur de monnaie électronique. Hmm. ñu dajale leen ci benn kuréel goo xam ne day xeex seen ak ak yelleef. Hmm. boobu ba gis nañ ni ay jéego yu mag a mag a mag ñu ngi koy am. Hmm. gis nañ ni tamit euh, population bi gën nañu am courage gën nañu am fit gën nañu xam seen ak ak ci biir banque bi. parce que ni banque bi amee ay àq ak yelleef noonu la client bi amee ay àq ak yelleef de sorte que comme doole tolloowul ñu yaakaar ne bu ñu bu ñu tegee kuréel bi te ñu ngi koy gis sax euh, dina am benn équilibre boo xam ne euh, dina am ci rapport de force bi boobu ba léegi nag ñu ngi ciy liggéey di ci sensibiliser di recevoir ay réclamations ak ay plaintes usagers yi ñu koy traité di teg banque yi di dénoncer di def ay propositions di alerter. Mm. parce que en réalité ACSIF force de proposition la de dénonciation. yan ak yi ngeen la actif jot am ba mu sumboo ci xeex bi euh, parce que comme ni nga ko waxee ñu ngi doon jalgati souvent bale léegi sax ñu ngi jalgati ak ak yelleefu euh, client yi ak sociétaire euh, banque yi yan ak yi yoo xamante ni tey jii benn wala ñaar actif mën nañu ko citer ci ay kombaam loo xamante ni xeex na ko ba am ci ay objectif am atteindre ay objectif am plutôt. waaw ak yi bëri na. Mhm. Moro. Mhm. ak yi bëri na bu ma ci gën a cité rek mooy les dix neuf de gratuité mooy fukki poñ ak juróom-ñeent yoo xam ne. Mhm. banque centrale da ko génnee xamal banques yi ak askan bi ni. yi kenn dootu ko feeti ci banque yi. mooy lan. bu njëkk boobu ba ngay booy ibbi compte da ngay fay. buy mm-hmm. tëj compte da ngay fay. Mm-hmm. jamono jii may wax ak yow ni ibbi compte ak tëj compte yëpp amul benn fay. Mm-hmm. c'est gratuit c'est gratuit. mais am na somme booy déposé quand même initial. amoo cest à bu dee compte épargne la. dañ lay déposé loo benn somme boo xam ne yaa ko moom. am na banque yu bëri yoo xam ne vingt cinq mille la ñuy laaj. somme boobu yaa ko moom. saa yoo bëggee mën nga koo jël saa yoo bëggee mën nga tëj compte bi. mu mel ni tamit opération yi nit ñi doon def ci gab bi. opération boo def dañ la ko doon facturer jamono ji may wax ni amul benn opération boo xam ne ci gab bi dañ la koy mm-hmm. facturer mm-hmm. bu njëkk ba boo génnee sa gab yow dem beneen gabu banque def fa opération dañ lay facturer ay deux mille cinq cent ça mm-hmm. ça ci montant bëgg a jël lu bari lu bari jamono ji may wax ak yow ni loolu amatul beneen bi mooy relever de compte yi euh, yooyu yëpp c'est gratuit donc fukk SMS yeek mail yi ngeen di jot yooyu yëpp ça doit être gratuit fukki poñ juróom-ñeent yoo xam ne Euh, banque centrale génnee na ko xamal na yii kenn dootu ko fayati ñu war a nag jàll. ci deuxième phase yéen a ko xeex. loolu ñun ñoo ko xeex. ñoo ko hmm. laaj banque centrale woo APBF mooy kuréel bi nga xam ne moo ëmb banque yi waxtaan ak ñoom ba ñu tënk ko ba ñu téye ko. Hmm. ñu war a jàll rapidement ci deuxième phase bi nga xam ne ay baisse lay doon. Hmm. daanaka taux d'intérêt yi ñu xool nuñ koy wàññee. agio yi ñu xool nuñ koy wàññee. yeneen frais yëpp yi nga xam ne day am ci banque bi ñu xool nuñ koy wàññee. Mm-hmm. donc xeex bi yemul fii moo ngi continuer moo ngi law di dem chaque jour ñu bind réclamation wala ñu bind euh, banque centrale wala état du Sénégal pour yëg leen li ay jalgat ci yoo xam ne dañ koy gis ci yenn banques yi. Mm-hmm. te bëri na boo bëggee tam mun naa la ci citer. Mm-hmm. bu ci mujj rek mooy am na benn banque bi boo xam ne dafa bind ci ay convention am ni. ci article vingt six beeg vingt sept bi ni képp client boo xam ne toog nga ñetti weer defoo réclamation ci benn euh, tooñ buñ la def. Mhm. ñàkk nga xaalis bi. Mhm. ñu ne leen loolu ñu ko ci yoon. Mhm. bind nañ banque centrale wax ko ne ko. bu loolu amee il faut faudrait que tam réciprocité bi daanaka ñoom it banque buñ juubee dugal ci conte client xaalis. ba ñetti weer client bi bu ko lekkee amatuñ ñu ñu wax. parce que tam ñoom duñ ñu ne buñ ñu jëlalee. ñetti weer réclamé wuñu ko dañuy ñàkk. Mhm. te ñoom bu ñu leen jëlalee ñetti weer doo duñ ñàkk loolu mënta nekk. Mhm. soit dañuy annuler boobu. ñu xam ne mbir yi dañ ko war a teg en toute transparence bañ la jëlalee loo xam ne waruñu la ko jëlal fekk at ñaari at ñetti at war nga mën a taxaw réclamer ko bu dee da nga koy door a gis comme boog ñu nit buñ leen jëlalee buñ ñu ko réclamer ñu jox leen ko donc yu mel noonu mhm. ak euh, gab yi nga xam ne dañuy paan xam naa dañ ci dellu si réclamation yëpp chaque fois dañuy bind état du Sénégal wala ñu bind banque centrale xamal leen ne lii kat jalgati yoon la. Mhm. ak yenn service yoo xam ne dañ koy fayloo usagers par la force. Mhm. alors que ay service la parce que service du obligatoire. service mhm. c'est facultatif. bu la neexee jël bu la neexee bul jël. yu mel noonu chaque fois ñun dañuy alerter banque centrale wala ñu dénoncer ko wala ñu bind directement euh, banque bi defal ko ay proposition pour mu améliorer ay service am. moo tax nag vraiment jàpp nañ ni euh, ñun. liggéey bu ñu war a def ñu ngi ci mën naa bañ a mate nag mais chaque fois ñu ngi waxtaan ak état du Sénégal euh, ci observatoire. Mm-hmm. may fàttali ni tamit ku am problème. Mm-hmm. daf ñu koy envoyé. daf ñu koy envoyé par mail bu ko defee ñun ñu taxaw ci. ngeen mën ci taxaw mën ko jàppale. ñu taxaw ci bu baax parce que ku ñu envoyé problème am par mail ñun dañ koy enregistré. Mm-hmm. partagé kook médiateur de banque bu ko defee moom mu saisir banque bi ñun ñu saisir suñu côté banque bi. bu ko defee euh, problème bi. nga xam ne kon seen dossier dina bëri de. ngeen liggéey de. ay 40 la ñuy jot par jour. <laughs> par jour waaw xam nga dañoo nekk ci benn waaw. population boo xam ne mhm. dafa analphabète. Mhm. moo tax ñun dëkk bu nekk commune bu nekk installé nañ fi ñu ngi si 371 communes. Mhm. yoo xam ne installé nañ fa am fa groupe WhatsApp. am fa secrétaire général am fa bureau. plainte yi nag ni ñu koy recevoir yi bëri na dañ koy recevoir par SMS. dañ koy recevoir par mail. dañ koy recevoir par whatsapp parce que am na ñoo xam ne jànguñu. Mhm. bëgg nañu am nañ lu leen métti ci banque ba bëgg nañ def réclamation bi xamuñu sax nu ñuy bindee wala xamuñu nu ñuy bindee xamuñu ne bu ñu waxee bu defee audio. envoyé ñu ko tamit ñun dañ koy jël en charge mhm. moo tax plainte yi yenn saa yi sax day dépasser quarante par jour mhm. mais dama wax rek une moyenne de quarante par jour yoo xam ne dañuy fexe nuñ ko traité di saisir. mais mais actif gisoo naa tamit ngeen porté combat wu euh, Bocar Samba Dièye ñëpp xam nañ Bocar Samba Dièye pratiquement banques yi dañ ko ruiné euh, fan ngeen toll ak ci kaw Bocar sàmba Dièye moom mi nga xamante ni gis nga euh, li mu dund ak banque yi. waaw xam nga banque. Mhm. boo ko tooñee. Mhm. du jarul ay at. Mhm. imaginez 2008 ba 2020 presque 12 ans. problème bi di traité war na tey xel. war na tey xel ci dañ koy tàrrel war na tey xel ci banque bi nga xam ne mooy puissance bi financière bi mënul am dëgg ci moom en réalité góor gi dañ ko dañoo jàppoon ni jàngul mm-hmm. war a mën a tibb ci xaalisam te du ko yëg waaye xam nga intelligence moo moo moo raw sax moo moo sut intellectualisme mm-hmm. c'est vrai que jàngul français waaye jàng na alxuraan te muus na te min na commerce bi muy def mm-hmm. parce que avant indépendance ma nga ca commerce ba boo ko dégloo sax dala koy wax. Mhm. naaxul ba pare xam na bu baax cent trois bateaux. Mhm. ceeb mhm. la indi ci réew mi. ñun avant ñuy juddu dégg nañ turam. buñ juddoo dégg nañ turam muy indi ceeb ku fi dànk ceeb. dugal si gémmiñ Bocar Samba Dièye la ko jaay. donc même bu muusul sax même bu jàngul sax miin na. liggéey bi donc am na ci expérience. ku mel noonu waroo koo mën a nax. léegi nag ñoom dañoo jéem a euh, falsifier. naka la demee. ay document pas bi. c' est à dire mm-hmm. que mbirum traite la. Mm-hmm. traite boo xam ne 17 millions de ton la yu si tegu benn bateau boo xam ne livraison à vue la. Mm-hmm. bu mu yegsee pas bi dafa fay ñu wàccee ko parce que livraison à vue mooy. bateau bi day taxaw. nga fay ñu décharge. bateau bi bu mu taxawee pas bi fay ñu déchargé ay bis après CBAO. Mm-hmm. il faut que ma tudd ko tamit. Mm-hmm. génne benn traite boo xam ne nee na Bocar Samba Dièye moo ko signé Bocar ne leen bato bii teew mu teew la. teg-teg mm-hmm. gi la. damay fay ñu ñu ñu ñu ñu ñu livré. mais quinze jours après war leen mën a génnee traite boo xam ne man. signé ma ko parce que traite bu njëkk ba amul signature. ñu indiwaat beneen traite boo xam ne valable tamit. am na ay manquement ñu indi troisième traite ci benn même bateau mhm. parce que bu ñu leen laajtee traite bi amuñu traite bu ñu njëkk indi amul signature beneen bi tamit dafa am ay anomalie troisième traite bi ñu falsifier signature am. Mhm. imiter signature am ko. Mhm. def ko ci traite bi yónnee ko. expert bi nga xam ne moom lay justice jël. pour que mu càmbar relation financière bu ñu amee problème entre CBAO ak Bokar Samba Dièye moom moo wax ni comportement CBAO da ko jaaxal. parce que mënul ni banque. dana dem bay falsifier signature di photocopier. Mhm. pour mën a joxe traite. bu bu expert bi attirer seen attention ci question boobu dañ ko ne delloo ñu traite bi ñu jox la beneen traite bu baax bi. mu mhm. leen déedéet bi mooy ñetteel traite ngeen may indil boo xam ne baaxul. Mhm. yan kay traite yi dugg na ci biir dossier bi yéen kay indi leen bu baax bi rek. mbir mi birum traite la boo xam ne cinq milliards six cent cinquante millions la. ci koppar. ci koppar. Mhm. mooy juróomi milliards ak juróom benn euh, téeméeri. Mhm. million ak li ci topp li ci tegu. Mhm. loolu la xaalis ba xayma traite bi mais xam nga Bocar Samba Dièye dafa amoon ligne de crédit. ci banque ba ligne de crédit mooy da ngay indi say bien nga jox ko banque ba banque ba autorisé la benn ligne boo xam ne daanaka mën nga jël ba foofu six milliards la woon. waaw léegi nag. cinq milliards six cent cinquante millions bu ñu ko bu ñu ko jëlee. ci compte bi ak ay frais day yegg ci presque sept milliards cent. Mm-hmm. cent nangam mm-hmm. millions. Mm-hmm. waa nan nga mën a yow banque tey nga accordé nit six milliards. ngay fay sept milliards. xam nga tamit xel dafa am lu mu nangu ñu ñëpp niñ ci banque yi xam nañ ñu muy doxee boo fa amee cent mille francs def benn chèque cent dix mille sax. boo demee du jàll mhm. waa nan la Bocar Samba Dièye am waree am six milliards foofu ñoom ñu koy fayal sept milliards mhm. waa même booy fay sept milliards moom da koy demandé Bocar mhm. Samba Dièye dépassement déjà traite facilité la euh, ba pare ligne de crédit facilité la mais dépassement sax il faut que yow nga demande ko. te banque yi boo leen ko demandé yenn saa dañuy jël temps wala ñu mais banque du la ko fayal mukk te demandé. ko wala avisé la ba nga joxe sa accord. waa léegi nan la mën a nekkee ñoom ñu fay traite boo xam ne Bocar Samba Dièye yéegul tinul mu am dépassement boo xam ne moom yëgaluñu ko tinuñu ko ba pare ñu bëgg ko fayloo di saisir ay biens mu nekk loo xam ne dafa yenuwul maanaa banque du fonctionner noonu ñëpp xam nañ ko léegi nag problème bi duré na depuis lors mu ngi tribunal ñuy yéeg di wàcc tout récemment justice kase na protocole bi nga xam ne. Mm-hmm. moom lañ signé woon paa bi pour won ko ni yow yaa ñu amel xaalis fekk ne paa bi xamuloon protocole mu demee. Mm-hmm. pour rek ñu bañ a juger traite bi. Mm-hmm. parce que problème bi problème mu traite bi la. protocole boobu euh, juge bi kase ko. pour que ne baaxul nañ leen juger traite bi xool ndax traite bi. en réalité jaar na yoon jaar na yoon wala jaarul yoon. est-ce que remplir na conditions financières yi traite wala remplir ou pas est-ce que wala validul question bi yëpp foofu la. Mhm. te ñoom wóor na leen ni traite bu ñu indi validul complot la bu ñu defoon paa bi te ñi ko complot xam nañ leen xam ñu seen tur boo gisee Maroc dem ba rappeler euh, directeur général bi fi nekkoon Rakhine nga xam ne moom moo fi nekkoon directeur général dàq ko mais xam na wóor na ko ni def na ay jëy yu mag ci dossier bi. Mhm. cinq milliards euh, cinq milliards six cent cinquante millions sept milliards. du sept mille francs du soixante dix mille francs mhm. du sept cent mille du sept millions mhm. du soixante dix millions sept milliards alal ju takku la xam ne balaa nga koo génnee ci ay firnde yu wóor nga koy génne waa lan moo waral légèreté banque bi muy dem di fay sept milliards te benn amul këyit bu ko wóor ñaar mu am dépassement boo xam ne signalé wu ko paa bi di ko ko fayal noonu alors que euh, papier port yi mhm. port autonome bu bateau bi costé le juin ñu déchargé ko ba le 15 juin 15 jours de euh, ba le 16 juin. Mhm. déchargement. Mhm. Euh, leer na ne livraison à vue la c'est jour après le au mois de juillet la ñuy door a defar traite waaw dañu waxante dëgg tey man bu ma bëggee nga retirer sama xaalis compte. Mhm. du ma leen ne retirer ba pare ma defal la chèque déedéet dama lay defal chèque nga téye dem retirer ji waa nan la mën a nekkee nag boo Bocar ba Dièye moom. retirer marchandise bi ba dugal ko ci ba encaissé ko ba pare ba ñu déchargé ko ba pare. Mhm. ñu door ko defar traite. Mhm. traite kay dañ koy defar jox la ko. Mhm. ba pare nga door a mën a fay euh, jox waa ji. pour récupérer sa marchandise mais marchandise bi livraison bi moo jiitu euh, traite bi. datu traite bi. production traite bi. livraison marchandise bee ko jiitu donc dafa am ay jalgati yoo xam ne day sauter à l'œil am nañu même boo jàngul même bu dee miinoo banque. am na yoo xam ne yenn wul maanaa paa ko bëgg jaay doole. moo tax ñun bu mu ñu joxee dossier bi ñu xool ko bu baax boobu ba léegi ñu ngi xeex. ba léegi di sensibiliser population bi mm-hmm, mm-hmm. parce que tam la justice. elle est rendue au nom du peuple. du ñu seetaan góor gi ñu koy teg bu doon moo tooñ ñu ñu ko jàppale mukk. Mm-hmm. mais bu ñu wóor ni dañoo wóor dafa ñoo wóor ni paa bi dañ ko bëgg jaay doole. dëgg sërëxal ko bëgg ko nax nangu alalam moo tax nag ñun ñu ne duñ ko nangu. CBAO banque étrangère la. Hmm. góor gii entreprise bu mu yor Sénégal. Hmm. CBAO lu mu liggéey Maroc la koy yóbbu tabaxee ko góor gi gis nañ ni. Mauritanie bii sax yaakaar na ni musu koo génn. Hmm. fii du dem France. du li mu am fii la koy yemale. sénégalais yi di ci liggéey sénégalais yi di ci lekk di ci di ci di ci dund comme bokk ñun en tant que sénégalais nekk ci dëkk bi. mënuñu seetaan. ñu tooñ sénégalais bëgg nangu alalam pour di ko taxawee beneen réew loolu duñ ko nangu. kon ba léegi yéen a ngi continuer xeex bi euh, beneen bi tamit euh, xam naa lu ni mel moo tax ñuy wax ay affaire u arnaque bancaire ainsi de suite mais tey ñu ñëwaat ci wàllum prêt euh, maanaam tey jii bu fekkente ni da nga bëgg banque lebal la oto wala mu lebal la nga tabax kër naka lay demee exactement. waaw xam nga. ak ñan lañ koy lebal. waaw xam nga ah. may fàttali ni. Mhm. Sénégal am na ñaar fukki banque ak ñeent. Hmm. ak 303 ñetti téeméer ak ñetti institution de microfinance moom mooy mutuelle yi. Hmm. ñoon ñëpp ay kërum jaay xaalis lañ dañuy jënd xaalis di ko jaay soit ñu jënd ko banque centrale ñëw jaay ko nit ñi clients yi. Hmm. wala ñu jënd ko ci ay clients ñëw jaay ko at ko ay. clients banque nag ñun critiqué wuñu ko xarab ñu ko nee nañ dafa war a am ci dëkk parce que dafa baax ci dëkk. ñun contre ñu banque ci dëkk encore mm. une fois mm. mais dañoo bëgg ay banques yoo xam ne ay banque de développement la ay banque yoo xam ne day suqal koomu réew parce que banque moom moo am possibilité lu mu am pouvoir boobu tey Masamba am na mm-hmm. Mademba amul Masamba mi am jël alalam dugal ko banque banque ba jël ko lebal ko Masa euh, Mademba bu ko defee Mademba mi nga xam ne amuloon liggéey te am na projet mu liggéey fay du tee Masamba moom dina continuer di am li muy am ba ñu compal ko ci bénéfice bi tegal ko ci sax mais Mademba moom dina liggéey nekkoon zero am liggéey am xëy. am mm-hmm. entreprise di jël ay emploi mm-hmm. donc banque lu baax la ci réew. mais banque tamit il faut que mu nekk banque de développement du banque boo xam ne day toroxal askan bi du banque boo xam ne wutum xaalis rek ko tax a jóg. banque dafa war a accompagner entreprise yi accompagner citoyens yi pour que ñu mën a développer. seeni projet loolu la ñuy xaar ci banque moo tax askan bi état bi jël mesure de bancarisation mm-hmm. bancarisation mooy bépp payoor boo xam ne toll na ci cent mille francs wala mu topp wala mu ëpp ko mm-hmm. état bi ak banque centrale nee nañ ko yóbbu banque dañ ko mm-hmm. jaarale banque nit ñi dafa faye ko ñi fay faye ko pour ñu mën a def Euh, pour ñu am sécurité ci seen xaalis. Mhm. ñu koy fay ñu fay fayee ko pour que banque bi am liquidité boo xam ne koo ko fa bàyyi mën na ko lebal ma Samba wala ma Demba. Mhm. ñu fay fayee ko pour que xaalis ba bañ a yàqu parce que tey ba xaalis ba du ko dugal ci suufu ron la li ginax yi di ko lekk ak mhm. yooyu. amul sécurité. ñu koy fay bàyyi pour que marché yi di tàq xaalis ba di yàqu. amul njëriñ ñu ko fay bàyyi pour que ñu mën a jàll ci benn phase bu ñuy wax inclusion financière nga xam ne xaalis ba sax dañuy dem ba nga xam ne kenn dootu ko manipuler mm. sa portable lay nekk rek ngay def ay opération monnaie ak mm. yooyu mm. donc banque côté boobu am na ci solo mais nag bancarisation boobu dafa war a am mesure d'accompagnement parce que gis nañ ni mm-hmm. banques yi dañ ci gagné lu bëri léegi nag yow boo nekkee ci benn banque war nga am yeneen facilité facilité yooyu mooy am sa projet dem jël fa pare mais gis nañ ni pour jël prêt banque jafe-jafe yu mag nga ci am dafa am ñaari banque wax naa ko sànq ay banque ak ay mutuelle banques yi moom dafa mel ni borom doole yi sañ ko fi defal mhm. parce que boo xoolee ñoom ñooy dem banque te seen taux d'intérêt nee nañ téeméer bu nekk fukk ak juróom bu mu ko dépassé banque centrale la ko wax mhm. néewum doolee ñoom ci mutuelle yi la ñuy dem mooy jaaykatu jën yeeg jaaykatu gerte caaf yeeg mm-hmm. marchand ambulant yeeg laveur véhicule yeeg ñoo ñëpp mm-hmm. ak béykat yeeg sàmbkat yeeg nappkat yi ñi nga xam ne li yor bëriwut mm-hmm. ñoom ñëpp ci mutuelle yi la ñuy dem waaw ñooñu nag li ñu waroon jàppale et banque centrale ne taux bi ñaar fukk ak ñeet ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ñeent est-ce que gis nga système bi ni ñu ko tëggee ba nga xam ne ñi am ñoom taux bi du dépassé fukk ak juróom ñi ñàkk ñoom taux bi di yegg ba ñaar fukk ak ñett ak ñaar fukk ak ñeent. mu mel ni ñii am dañuy continuer di gën a am ñii ñàkk di gën a ndóolu. mu nekk mbir moo xam ne dafa doy waar moo tax ñun bu ñu bindee président de république. fan yi passé gis ngeen ni wax na ci xam naa dinañ ci dellu si wax na ci ñetti yoon pour dénoncer loolu noonu parce que dañuy gis néew doole yi. dañuy liggéey. Mhm. di góorgóorlu. Mhm. mais luñ liggéey yëpp dañuy mujj di ko fayee banque. exactement banque yi di gën a am xaalis. Mhm. ñoom ñu gën a ndóol mais banque yi taux ñaar fukk ak juróom sax dafa bëri pour banque yi. parce que tey da ngay gis benn banque bu nekk Sénégal nekk France. même banque bi la moom France ñi moo fa def taux yoo xam ne téeméer bu nekk ñaar la. taux d'intérêt bi. Mhm. mu ñëw Sénégal fi di def téeméer bu nekk ak fukk ak juróom. mu mel ni ñun. maanaam bu dee France 2 pour cent fii 15 pour cent. Mhm. ñun. Mhm. ñun ñooy fayal français yi perte yu ñuy enregistré France ñoom fii lañ koy. compensé fii ñun Sénégal ak Afrique. ñu ne loolu du dëgg du yoon. microfinance yi tamit banque bi moom ñu am doole ñi 15 pour cent la ñuy am dañ leen di tegal taux. mutuelle yi gis nga léegi banques yi sax dañuy dem wëlbatiku di créer ay mutuelle parce que foofu la bénéfice bi ëppee mhm. banque yu bëri mun naa la citer ay mutuelle yoo xam ne créer nañ ko ci kara a mhm. ñi nga xam ne yoruñu ay néewum doole la gën a tibb seen xaalis bu ko defee ñoom ñu gën a samp ci ndóol bi mhm. ñu ne nag loolu tamit du dëgg du yoon mel na ni mutuelle yi ñuy créer noonu ñoom ñooy néewum doole bi moom mooy fayal boroom doole bi ay ay intérêt ñu ne nag système bi nu ñu ko tëggee war nañ ko xoolaat parce que banque rôle am mooy régler les disparités sociales daanaka ñi fossé bi daanaka différence bu bëree entre ñi am ñi ñàkk ñi banque moo ko war a réguler moo ko war a régler ba nga mm. xam ne ñi am dañuy xaw a gën a jege ñi ñàkk ñi mm. loolu mooy rôlu banque moo tax tey nga gis ni borom doole bu demee banque facilement lay am prêt mm-hmm. parce que garantie yi ñu koy laaj sax am na ko mm. réputation bi sax déjà jox nañ ko ci prêt mm-hmm. mais néewum doole bi nga xam ne amul garantie. ma bëgg 500000 sax problème la am na xa am na xam-xam. Mhm. étudiant bi laveur bi nga xam ne day gagné. wala marchand ambulant bi wala jaaykatu jën bi jaaykatu gerte caaf bi ñu day jafe pour ñu accéder au prêt te taux yi ñu koy jox dafa doy waar parce que dafa am banque am mutuel am ay usurier. Mhm. am na ay usuriers yoo xam ne dañuy liggéey ak ay banque am na ay usuriers yoo xam ne dañuy liggéey ak ay mutuelle. Mhm. usuriers yi mooy ñan. mooy ñi nga xam ne dañuy gàddu dix millions dugal ko seen pochette dem ca marché ba. fekk fa jigéen ñi ne leen yéen ñëpp ku nekk mën nañ la lebal trente mhm. ñu lebal leen trente mille ñu dem ci géej ga jënd jën waas ñëw jaay fay trente deux mille wala trente mhm. par jour xoolal taux d' intérêt boobu. Mhm. jour par jour. loolu taux usuraire la parce que boo ko calculer ëpp na ay quarante cinquante pour cent. dépassé na largement plafond bi nga xam ne euh, banque centrale fixé na donc c' est moo tax ñun ñuy alerter état bi. di ko wax ne na jël ay matuwaayam pour que mutuelle yi nga xam ne dañuy dépasser plafond bi ñu mhm. sanctionné leen mhm. euh, usuriers yi nga xam ne dañuy dépasser plafond bi ñu sanctionné leen ba pare ñu fexe ba protéger teg ay loi yoo xam ne day protéger usager bi parce que li ñu gis mooy loi yi protéger wul dara usager yi loi bi au contraire banque bi la gën a mhm, protéger parce que boo foo leen yegg yow da ngay daanu usager bi tey amul possibilité jël avocat bu ko banque ba toonee bu ñu demee tribunal day daanu. parce que mm. amul conseil juridique. Mm. bu mu bu tooñee banque ba mu gën a dee ñu nangu ay bien mag yooyu. Mm. donc fu mbaxane doonee benn doole yi tolloowul te dañoo war a fexe nag doole yi xaw a tolloo nag. fu mbaxane doonee benn. moo tax ñun dañu waxoon état bi mu mettre en place un fonds destiné à payer les frais de procédure pédiculaire daanaka ñu teg benn koppoor goo xam ne. képp ku am jafe-jafe ak banque. te amoo lu nga ko fayee dangay ngay dem dañu jox la avocat nga dem bëreeg banque bi lu la yoon jël. ngeen tolloo doole ci fu mbaxane doone leen li la yoon may nga jël ko mais ba léegi amul fonds boobu. Mhm. te fonds boobu ñoom bu ñu ko waxee état bi dañu ne fonds boobu xaalis ba fan lañ koo jëlee. Mhm. ñu ne leen client banque day fay ay taxes. banque ba ba nga fay dugg ba ba ngay génn yaa ngi. fay yaa ngi fay taxe. Mhm. taxe sur les opérations bancaires. waa taxe yu nañ ci comp zero virgule zero un pour xaajum benn. Mhm. ñu jël ko def benn fon boo xam ne ku ci am jafe-jafe banque parce que yow yaay produire fonds bi. Mhm. comme yaay fay ci fonds ba. donc war nañ la may yow jaa yow amee jafe-jafe ci jëflante bi ngay jëflante noonu ak banque bi nga xam ne fa ngay fay yow. taxe yooyu nga mën a am conseil juridique. loolu euh, il faut ñu def ko mu mel ni banque yi dañoo dëgër. lank loolu ba léegi état bi mënu cee. mënu cee antu te war te war na cee taxaw. voilà tamit nga am euh, compte bancaire mën na am xaalis bu bari euh, euh, banque bi mën na toog lu yàgg du la gis en day xaalis bi da koy récupérer loolu lan ngeen si mën a wax compte dormant yi ainsi de waaw bëri na lool. waaw na lool. xam nga tey portable ma nga yor sax. Mhm. opération yi ngay def compte fa ne compte courant la boo xam ne yaa ngi fay dugal di génnee di def mhm. ay opération banque la ne. Mhm. mu bëri ay pop ay population yoo xam ne tey am nañ compte te compte dañ koy assurer. Mhm. may fàttali ni compte koy assurer. Mhm. assurer mooy lan même waa ji bu génnee àddina bari na ñuy génne àddina te duñ laal dara. Mhm. alors que nit bu amee compte bancaire compte courant génn àddina. exactement lu mu dee dee war nañ ko jox benn million wala ñaari million famille il faut que nit ñi di. bàyyi bu amee compte courant ñaata nit. ñoo am compte courant ñoo am compte bancaire compte boo xam ne ñu ko assuré. dañ koy mm-hmm. assuré parce que yëpp la ñu mm-hmm. génn àddina te seen famille jotul dara parce que xamuñu. Mm-hmm. te banque bi tam woowu leen. woowu leen contacté wu leen. beneen bi mooy compte yi ngay jot sa nekk sa portable tamit. na nga xam ni compte banquer la. ñaata nit ñoo génn àddina tey compte yooyu am xaalis muy 1000 francs wala 2000 wala mille te code bi xam nga ni ñoom. kon du ñoo ko xam. Mhm. parce que seen soxna sax xamu ko seen doom xamu ko. Mhm. tey ñu génn àddina xaalis boobu nekk ca banque ba ba léegi jotuñu ci. Mhm. réglementation bi am na lu mu wax ci compte dormant compte dormant am na ay at yoo xam ne. bu fa toogee ca banque ba banque ba da ko war a jëlee foofu yóbbu ko banque centrale. mu am ay at yoo xam ne bu ko fa toogee tamit dafa war a jëlee banque centrale dem dem dem trésor public u dëkk bi. mais ci diggante boobu am na ay mécanismes yu ñu wax ni banque bi war na ko def pour retrouver famille bi d'abord. pendant toute cette période bu retrouver wul famille bi bu ko yóbbu banque centrale tam banque centrale mm-hmm. war na def ay effort pour retrouver famille bi mm-hmm. bu ko retrouver nag ñu door ko yóbbu trésor public mais gis nañ ni banque duñ def benn effort pour retrouver famille bi xam tax mm-hmm. xaalis day nekk seen circuit day nekk seen comptabilité ñu koy utiliser di ko lebal Massamba ma dem na di ci am ay milliards yoo xam ne tey loolu moo leen gën a arrangé parfois mi ngi dund wala dee na duñ ko sax lijjanti ñoom l' essentiel lañ ciy jël ay pénalité l' essentiel lañ koy jël di ko lebal ma Samba ak ma Demba bu bu at bi jotee ñu jox ko banque centrale. Mm-hmm. duñ ci teg benn intérêt duñ dara banque centrale tamit moom euh, gis nañ ni sitam mm-hmm. c' pas accessible. Mm-hmm. ñu bëri xamuñu ko parce que population bi tam population bu analphabète lañ xamuñu sax war nañ trouver yoo xam ne tey day permettre population bi ñuy xam quels sont les comptes dormants et de la manière la plus simple mais malheureusement kenn mënu la kenn mënu la jox liste compte dormant yi. encore mu duggaat ci arnaque bancaire bi euh, faillite tamit su amee euh, dañuy gis ni Famara Ibrahima euh, Cissé ñi ciy gën a loru mooy encore client wu maanaam banque bu jékki-jékki rek tëj wala mutuelle jékki rek tëj waaw ñu bëri dañuy ñàkk seen xaalis. dëgg la waa fi mu nekk nii jot nañu ay réclamations yu mhm. bëri yoo xam ne ay usages yoo xam ne dañu ne. Mhm. ñun banque ba dañ koo wóolu woon. mutuelle ba surtout. Mhm. dugal fa suñu alal. Mhm. épargne fa. Mhm. ñu xëy mu ne mes ne mainten fi mu nekk ne ñu ñëpp ñu ngi nii taxaw suñu xaalis yóbbu nañ ko te xamuñu lu ñuy def. Mhm. ay réclamations yu bëri yu mel noonu lañ ci jot. ñu gis ni il faut que direction de la réglementation tamit di def liggéeyam liggéeyam mooy lan dafa am ay microfinance clandestine yoo xam ne ñu ngi fii di évoluer dans la clandestinité dañuy ñëw dugg ci benn gox installé wu fa sensibiliser population bi amuñu benn agrément. ne waaw cinquante mille ñu lebal la cent mille cent mm-hmm. cinq cent mille mm-hmm. yooyu nit ñi indi seen i alal mm-hmm. dugal ko fa moom bëri ñaari mbir mooy am soit ñu tës tëj ne mes na menten kenn dootu leen gisati wala dañuy dajale xaalis boobu femmes yi jox leen ak jeunes yi jox leen ñu jox ci ñaar wala ñett wane exemple li ñoo ngi ñoo ngi leble fekk ne leb xaalis boobu rek lañu jël mm-hmm. leen ñu def ko seen gafaga mm-hmm. leneen la ñu lebal ko ma Masamba ak ma Mademba bu ko defee ne ñeneen ñi xaar leen loolu nag ba pare ñee bu ñu bëggee jotaa seen xaalis bu nekk ay jafe-jafe yu mag direction de la réglementation na jël ay mesures mm-hmm. par rapport à ça bëri nañ nag ñu koy def yàgg nañ leen bind yàgg nañ leen alerter pour ñu jël seeni responsabilité xam ne dëkk bi rëyul li fi waay def rapidement surtout ay institutions Euh, bancaire wala institution de microfinance rapidement nit ñi dañ koy xam parce que mënatuñ ndax la hmm. loolu daal direction de la réglementation ak banque centrale ñoo war a assainir milieu microfinance voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission euh, sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal euh, faamara Ibrahima Cissé nekk président bu ACSIF nekk association euh, client wu ak sociétaire wu institution financière yi maanaam banque yi tey jii ñu nekk ci loo xamante ni moo occupé pratiquement actualité bi di feebar bi lee di coronavirus Covid 19. lan nga ñu ci mën a wax nga xamante ni moo jaaxal àdduna bi yëpp actuellement. waaw may wax ni. Mhm. feebar bi dafa nekk sinistre mondial. Mhm. boo xam ne mu ngi lor askan bi. Mhm. mais aussi mu ngi suuxal ay koomu dëkk. moo tax dëkk yëpp war a jël seen matuwaay surtout Sénégal bi nga xam ne pays sous-développé la ba pare dugg na fi. mais rafetlu décision yu autorité étatique yi jël. mesures yi mu yi mu jël di demander population bi pour ñu limiter. Mhm. seen i déplacement parce que en feebar bi bu lawee rek c'est parce que déplacement bi yeeg jonkante yeeg ñàkk gëm ndax am na wala amul ak yooyu. Mhm. moo koy lawal. pour que mu taxaw nag feebar bi il faut que ñu limiter benn les déplacements am na ci solo trop beneen bi mooy feebar bi dafa am conséquence ci koomu réew mi. Hmm, ci koomu àddina sax parce que ci ci loolu tax na activité yëpp a taxaw instant bi Famara. activité euh, yëpp taxaw na taxaw na pratiquement. marché ba doxatul. Hmm. mu am ay conséquences yu métti ci ci usagers yi mooy clients yi liggéeykat yi. Hmm. mais mu am ay conséquence ci entreprise yi. moo tax fan yii passé gis ngeen ni banque centrale jël na ay mesures FMI jël na ay mesures. banque mondiale jël na ay mesures xam naa dinañ ci dellu si. Mhm. mais li may wax rek mooy état du Sénégal mesures yu mu jël dafa war a baax na ñu ngi tàccu rafet na mais dafa war a am mesure d' parce que mhm. c' est insuffisant. Mhm. c' est nit ñi dañoo war a limiter seen déplacement. c'est vrai que man maa ngi jaajëfal. Mm-hmm. Euh, ministère de la santé ak ñëpp ñoo xam ne këru docteur lañ ci biir dëkk bi. Mm-hmm. parce que gis nañ seen taxawaay gis nañ seen liggéey gis nañ seen engagement ak sacrifice bu ñuy def pour que tout simplement ñu xeex askan bi. Mm-hmm. gis naa tamit euh, ñun euh, association yu mel ni ñun. ñu ngi sensibiliser population ñoom ñëpp ma leen di jaajëfal ci li ñu def. mais li am ba am mooy dafa war a am ay mesures d'accompagnement entreprise yi boo leen seetloo. service minimum la ñuy def ñu ci am doole. exactement ñu ci ñàkk doole taxaw nañ complètement mhm. léegi nag entreprise mënul def service minimum mënta taxaw ñu bëgg ko fayloo ay salaire mhm. ba pare li daan ñëw ñëwutul. ça pose problème. problème surtout que buñ ci tegee entreprise ba di fay prêt bancaire. parce que mhm. entreprise yëpp a jël ay prêt bancaire. personne physique yëpp a jël prêt bancaire. entreprise bi mënta fay prêt bancaire di fay salaire marché ba doxul. Hmm. léegi nag ñun lu ñu wax. Hmm. par rapport à ça dañ na président de la république na jël benn décret sur le délai de grâce. Hmm. décret sur le délai de grâce mooy lan. fii ak ñetti weer renouvelable bu kenn fay prêt parce que entreprise yi waroon fay prêt dañoo war a limiter seen personnel limite dañoo limiter seen fonctionnement. war a di fay ay salaire mm-hmm. munoo boole continuer di fay prêt continuer di fay salaire te marché ba doxut mm-hmm. personne physique yi tamit ñi nga xam ne ñoom dañoo wàññi seen déplacement école yi tëj na xarmat amatul euh, dara marché yëpp tëj na lu may mm-hmm. tëj na pêcheurs yi euh, seen seen seen seen kii napp bi transporteurs yi naka noonu doxatul waaw dañ leen di wax sax boo leen dem géej léegi nombre bi ngeen di yóbbu ak ni ngeen koy defek yooyu jaaykatu lu yi marché en yi oto yëpp taxaw na. Mhm. fi mu nekk ni activité économique bi ak fi waaye doon xoslu pour am taxaw na. lépp taxaw comme ñooñu tamit. Mhm. ñu am prêt banque. parce que ñoom ñëpp pour liggéey dañoo jël prêt. ci banque mhm. wala ci mutuelle. ñu am prêt banque ñu taxawal seen activité ne leen toog leen seen kër. limiter leen seen déplacement ba pare ñu ñu continuer di fay bor. mënut nekk. pour entreprise bi comme pour personne physique bi. moo tax ñu ne président la république. jëlal décret jëlal décret boo xam ne day décréter le délai de grâce. bu ko defee banques yi xam ne fii ak ñetti weer ak mutuelle yi xam ne fii ak ñetti weer benn usager entreprise personne physique comme personne morale du fay prêt. mais est-ce que tamit ñoom duñu am problème. du am benn problème banque yi ñoom seen bopp. du am benn problème xam nga mm-hmm. banque. Mm-hmm. du ci prêt rek intere rek lay amee xaalis. am na ay services yu bëri nekk ci biir agio yi da koy dagg. imaginez banque boo xam ne cent quatre-vingt mille clients la am. Mm-hmm. mu dagg ku nekk 7000 francs multiplier ko nga xool ndax mënul jël en compte euh, charge am yëpp da koy jël ba mu mat sax donc banque amut problème boobu ak yeneen services yi nekk ci biir carte GAB agio euh, frais de frais de de de relevé de compte et cetera mm. et dafa bëri ay service yoo xam ne ñu ngi la koy dagg chaque jour. Mm, mm. nga xam ko ñàkk ko xam. donc du am benn gàllankoor ci banque yi mais buñ ko deful dina am gàllankoor ci usagers yi gàllankoor yi mooy yan bu ci njëkk mooy. képp kuy jël prêt da nga jox ay garantie mhm. tey jaaykatu luuma bii dem jëli prêt jënd ay ay balu fëgg jaayam mhm. amana këram la joxe garantie ci banque mhm. ci mutuelle ba waa léegi moom bu dee luuma ba tëj nañ ko dematul luuma dematul luuma mu war toog këram weer dee ñu ne ko waa boo fayul dañuy saisir sa kër fayul ñu dem def recouvrement déjà recouvrement bi rek xeex dana fa am xuloo dana fa am wallante dana fa am ñaareel bi mooy bu ñu ko yóbboo tribunal saisir këram génne ko këram ci période bu toll nii mu dem ci këru yaayam wala këru këru nijaayam nekk fa tamit ñu gën fa nekk wallante bi gën a law mm. boobu conséquence bu xaw a doy waar la jàngalekat bi nga xam ne moom mm-hmm. da doon xar mat ci école privée yi xëy ñu ne ko toogal sa kër gis ngeen ne yëpp tëj ko mm-hmm. amatul fu mu xaree amul fu mu xaree nat mhm. yow nga gis ni yow bu njëkk ba salaire trois cent mille nga doon am mhm. waaye bu jaaree banque ba génn rek yow cinquante mille la ciy des parce que dagg-dagg yi cinquante mille la fiy des mhm. yow cinquante mille yooyu ci xarmat yi nga ko doon compenser xarmat amatul waaw bu banque ba daggee ba mu des cinquante mille nga war a dund ak sa njaboot di nga toog sa kër di leen xool ñuy xiif amut fenn moo tax conséquences yi économique yi ci population bi da da leen di sonal. Mhm. ci entreprise yi. Mhm. da di sonal moo tax fi mu nekk ni il faut ko président de la république jël délai de grâce. Mhm. lu mu gaaw gaaw waaw mu jël ko mais beneen bi mooy xam nga travailleur état bi. da leen defal ay prêts. yu ñuy wax DMC pour ñu mën a am logement. di leen ko dagg weer bu nekk pendant cinquant mu leen di dagg ay cinquante mille ak yooyu. ñooñu tamit nee nañ état bi na arrêté dagg yooyu. parce que contexte bi moo ko laaj. beneen bi mooy créanciers yi nga xam ne dañ doon doon dagg à la source session volontaire yi ngay dégg yooyu yëpp nañ ko arrêté parce que contex bee ko laaj xam nga contex bi dafa méngoog état d'urgence mm-hmm. état d'urgence la sax mais dafa méngoog état de nécessité mm-hmm. te dafa am principe de droit général buy wax ni les droits humains mmh. sont supérieurs aux droits des mm-hmm. daanaka akkum ak nit ñi moo sut fuuf akku ñi nga xam ne dañoo war a jot seeni alal. Mhm. donc les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers principe de droit général boobu actuellement dañ ko war a appliquer ñun yàgg nañ topp assemblée nationale. Mhm. pour que ñu voter la loi sur le délai de grâce. Mhm. parce que dafa mel ni lii ñun dañ ko séntu woon. actif bind na président de la république plusieurs fois bind na assemblée euh, nationale plusieurs fois. plusieurs fois pour yi sous forme de proposition de loi wala président mu voté la loi sur le délai de grâce bu ñu ko amoon suñu dëkk bi application directe lay doon. Mhm. mais comme voté wuñu ko ba situation bi yegsi na président la république dégg ngeen ko ci communication mu wax ni. Mhm. dana dem assemblée nationale pour ñu jox ko plein pouvoir yoo xam ne day gouverner par ordonnance. Mhm. je pense que bu ñu ko ko joxee dina am possibilité décréter la loi. Le, décréter le délai de grâce. Mmh. délai de grâce mooy ñetti weer kenn du fay prêt. ba ñetti weer yi mat bu feebar feebar bu jógee ku nekk fay bu feebar bu jógul ñu ñu ñu renouveler ko. mais est-ce que lii bu jàpp nga ni sax euh, sénégalais dinañ mën a tee fay seeni location ak seeni ndox ak seeni courant parce que gis nañ kaawu France ñoom dañ ne côté yooyu nañ ko téye ba après ñu xool nuñ koy gérer. mais délai de bi. Mhm. jàpp nga ni loolu yëpp war nañ ko mën a élargir. Mhm. war nañ ko mën a élargir ba ci ba ci. ba ci courant bi. Mhm. ak ndox bi. xam nga location affaire privée la. Mhm, c'est privé. c'est mais ba tey état bi moo moom ndogal. war na ko mën a élargir ba foofu c'est-à-dire que may ñu leen ko dañ leen ne dañ koy pousse buñ ko poussé après ku nekk fay la nga amel may ñu leen ko donc dañ koy pousse rek délai de grâce loolu la. Mhm. loolu nag dafa demander compréhension mais buñ ko bëggee élargir ci location yeeg yooyu tamit il faut que ñu xam ni. am na ñoo xam ne dañoo leb xaalis banque. Mhm. tabax seen kër. Mhm. di konte ci location bi pour mu a fay. pour mën a fay gis nga source problème bi yëpp mhm. banque la. encore banque benn borom xam-xam bu mag nee na. si tu veux comprendre les problème suis les traces de l'argent. boo bëggee xam ni problème yu tëddee toppal yoonu xaalis problème mënut am àddina toppal yoonu xaalis boobu buggee comprendre. fi mu nekk nii gis nga euh, ñi nga xam ne ñoo moom seen kër loué ko. danañ ci opposé wu parce que raison bu ñuy avancé mooy dañ naan banque ba. Mhm. foog ñu fay banque ba foog gi dañuy saisir kër ko proposé nu mel. Mhm. gis nga bu yu bëri. dana sax bailleurs yi. dana tax bailleurs yi xam ne ñoom. mais locataires yi leen seen temps. jël leen seen temps. en attendant dana yomb dana mhm. gis nga bu réglé problème banque danañ rek ñoom danañ neex a waxtaanal. Senelec Euh, Sonatel ak ñëpp danañ neex a. waxtaanal mhm. parce que tamit mu amana am nañ fa ay engagement yoo xam ne. Mhm. Euh, dañ koo war a di honorer chaque euh, mois. mais li gën a firndeel loolu sax moom président de la république. Mhm. moom moo ne FMI ak nañ suspendre les prêts. exactement parce que xam na. xam na question bi nu mu dem FMI banque banque mondiale banque la FMI seen dañ doon fay mais bu demee ba moom mu ñaan. FMI ak banque mondiale. pour ñu suspendre wala ñu baal leen pare yi c' est parce que xam ne ni jamono jii. Mhm. kenn mënta fay bor. nañu waxante dëgg mais jamono jii. Mhm. kenn mënta fay bor ñun nag buñ ko lancé président la république. Mhm. lancé ko. Oh, ba léegi euh, banque bi tontu nañ leen wala. fin du mois bi am na lu ñu seetlu. gis nañ ni am na ay banques yu appliqué. comme am na ay banques yu appliqué wul léegi nag ñun ñu ngi ñaax. banques yi nga xam ne appliqué wuñu pour ñu appliqué. c'est vrai que président la république teel na fay salaire yi mais gis nañ ni am na ay banques yoo xam ne teel nañ dagg am na ñoo xam ne dagguñu xamuñu nag lu tax dagguñu ndax dañoo respecté mesure bi wala échéancier jàllagul mhm. ñu ngi taxaw di leen xaar mais li wóor ba wóor mooy il faut que mesure bi génn bu ñu bañee jafe-jafe di am ci usage bu ñu bañee bu ñu bëggee ñoom mesure yu ñu jël nit ñi mën ko respecté mais ministre bi tontu na leen ci en personne wala non ministre bi tontooguñu mhm. président la république tontooguñu mm-hmm. ñun ñu ngi xaar ñu def application directe nañu appliquer même bu ñu tontu nañ ko appliquer mm-hmm. buñ ko appliquer ba askan bi gis seen bopp rek ñun déjà mooy tontu bi mm-hmm. banque yi tamit il faut ñu xam ne ay entreprise lañu nekk ci réew mi seen xaalis ci réew mi lañ ko amee bu réew mi nekkee ci jafe-jafe dañoo war a taxaw gis nañ ni aide bu particulier yi jox état bi entreprise yi sax jox ñu ko état bi te banque mm-hmm. entreprise yooyu la bokk. Mm-hmm. boo dajalee entreprise yëpp yi nekk Sénégal 700 millions lañ jox état bi. Mm-hmm. alors que particulier yi ministre de la santé barki démb wax na ko plus de mille euh, d'un milliard joxe nañ ko. man yaakaaroon naa ni banque bu nekk dina génnee vingt milliards wala trente milliards teg ko ci kaw table état bi ne ko maa la ko jàppale maa mais nag il faut ñu comprendre ni banque yi fi nekk ay banque étrangères lañu moo tax liggéey ñii liggéey ci banques yi war nañ ci ni ñuy traité seen usagers yi ni ñuy traité seen mbokk sénégalais yi xaalis bi ñu leen di jëlal tuggul seen i poche mm-hmm. ci poche banque ba lay jëm te banque ba da koy liggéeyee dëkkam mm-hmm. ñoom ñuy toroxal seen askan pour permettre banque bi moom mu dem tabax seen dëkk il faut que ñu réfléchir encore ci ni ñuy def yenn taxes yeeg yenn frais yoo xam ne dafa inutile ñu koy forcer client bi wala duñ ko ko informer ba mu fay ko. voilà euh, peut-être fa ñuy jeexalee waxtu bi jeex na tàkk euh, hypothèse la euh, dañuy ragal bu kaay continuer ni confinement comme li am France ainsi de suite est-ce que jàpp nga ni Sénégal fi ñu toll ak pauvreté bi ni mu fi mel déjà ak couvre-feu bi rek gàllankoor yi mu indi euh, ci économie bi kenn xamul nu mu toll état d'urgence sanitaire bi gàllankoor yi mu andi kenn xamul nu mu toll est-ce que toll nañ foo xamante ni Sénégal njiitu réew mën na jékki-jékki rek ne. dañuy def confinement comme c'est le cas en France ainsi de suite. waaw xam nga confinement day jaar ay étape une minute ñu ñu tàggatoo waaw day jaar te mm-hmm. président la république première étape bu mu wax mooy nañ limité. Mm-hmm. gis nga bu ñu limité ba feebar bi gën a law ci confinement lañ jëm te boobaa ça devient obligatoire même France confinement dafa diis ba nga xam ne. Mm-hmm. Euh, président français bi sax ñemewu koo yëkkati. mais nag. nécessité lay doon am na fu ñu yegg moo tax banques yi war a jël des mesures sanitaires ñun barki démb def nañ tuuru banques yi pour xool ndax jël nañu mesures sanitaires parce que xaalis bi day contaminé mhm. bouton yi bi mhm. euh, surface bi day contaminé boo di compter sa xaalis fu ngay teg sa loxo day contaminé mhm. buntu yi ngay ibbi di ko tëj day contaminé mais gis nañ banque banques yu bëri jëluñu ay mesures de sanitaire nit ñaa ngi fay dugg di génn di wallante sa xaalis euh, euh, feebar bi si si moo tax ministère de la santé ñu jël ay responsabilité bu ñëwee ñun danañ bu ñu booleeg agent ñun danañ ko yóbbu ba ci banque yi démb dañoo dem ci banque yu bëri dañoo déconnecté dañoo daanaka déconnecté sensibiliser leen pour sensibiliser leen wax ak ñoom yuuxu leen sax ay chef d'agence yoo xam ne dañ leen ne force da di génnee gel bi parce que ñoom ñu ngi protéger seen bopp mm. koo ci dugg gis nga ni ci biir bureau def na ci benn gel boo xam ne ku mu ku mu waxtaanal ba pare sax laal léegi nag usagers yi ñoom ils sont pour compte ñuy wallante seen biir te mm. xamuñu ni mm. bu lawee ci usagers yi seen kër lay dugg si ñoom ñi dañ protéger seen bopp mais seen njaboot moo koy ñëw indiwaat ko dugal ko ci biir euh, mm. kër gi moo tax ñu war a jël des mesures sanitaires mm-hmm. ci gab yi nañ ci def ay ay gel vigile bi na taxaw ci bunt bi fexe ba ku nekk laaj gel bi ba pare bunt bi mm-hmm. moom rek na koy laal mm-hmm. ku ñëw mu ibbil la kuy dem mu tëjal la fexe ba assuré wu ni laal nga gel bi parce que même digital bi am na ay gab yoo xam ne digital la day contaminé ba pare chaque trente minutes nañ dugg ci na am benn service boo xam ne day dugg ci gab yi pulvériser ko. Mhm. chaque trente minutes na am benn service boo xam ne day dugg ci biir guichet yi fii nga xam ne dañ fay teg seen loxo di compter xaalis parce bu ñu la joxee xaalis balaa ngaa génn da ko war a compter te da nga war a am support. Mhm. benn plancher boo xam ne ko ñu pulvériser ko sinon bu ñu deful loolu. ca ca banque yeeg ca gab yi mm. la wàllante bi di am da ñu bàyyi la Famara nga tàggatoo auditeurs yi waxtu bi jeex na <laughs> waaw maa ngi lay remercier bu baax di mm-hmm. remercier mi FM mm-hmm. di rafetlu liggéey bi ngeen di def chaque fois di informer population bi di leen ñaax di leen sensibiliser seen waar vraiment yéen a ngi koy béy te maa ngi leen ciy félicité di remercier tamit membre actif yëpp mm-hmm. responsable yëpp secrétaire généraux yi nekk ci commune yëpp ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci terrain di veiller di contrôler di parfois sax jàmbarloog yenn banquiers yi pour que les mesures sanitaires ñu jël ko. Mhm. bu ko defee stoppé feebar bi. ñun nag may wax ne ACSIF mu ngi def ay cotisations. Mhm. dès le jeudi dañ jël la ñuy parce que euh, commune commune a ngi cotiser. Mhm. wax dëgg yàlla somme bi danañ ko jël dem jébbal ko ministère de l' et des finances comme ni ko ministre de la santé waxee. waxee jébbal leen ko wal leen ni suñu participation la. gëm naa ni gëm naa ni sax am nay banques a a baax avec euh, président d'association euh, des clients et sociétaires des institutions financières di actif euh, kon ñu leen di remercier tamit yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi 10 heures à 11 heures Léon Paul Mendy ci technique bi euh, émission bi tamit mën ngeen ko suivrat euh, ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube du Rewmi officiel Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen